bismillah alhamdulilah lazi wahda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiyya ba'da kon mbokk yi ñu leen gërëm di leen sant ci teewaay bi di gërëm tamit euh, mouvement bi taxaw lii di ko sant di ko gërëm pour am occasion mun a défendre suñu mbokk yi ñëpp ñu nekk ci kaso bi di subir injustice contre régime bii nekk fii en place donc di wax Sénégal yi rek nii dafa doy exemple mooy ñun suñu cas doy na exemple dama cité bu gàtt rek après ma ñëw ci détenu doy na exemple suñu cas accusé nañ lu nekk ay milliards accusé nañu ay armes man personnellement kalachnikov sama biir sama biir sama biir sama biir sama biir nekk 45 milliards sama suufu lool ak lance roquette tey bu ñu demee tribunal ñu fekk ci man 25000 francs la ñu fekk ci man xaalis bi amul fekk ci man benn ay ballu inter air comprimé yu ndaw donc lépp lu wane ni état bi dafa yàgg ci lii dafa yàgg ci mooy def ay manigance pour jàpp ay prisonniers tëj leen politiquement donc loolu moo am lekkul nañ fi 80 milliards ci lutte contre la terrorisme waral nag il faut que ñu dem ci kanamu tubaab bi woo justifier ni am na ñoo xamante ne ñu ngi fii mu waral nag ñu war di jàpp di dugal tàmbale ci ñun mais ñu ngi ko doon wax ñu ngi doon alerter mooy du yem ci ñun du yem ci ñun mooy ni lay continuer day continuer tant que peuple bi ñu ngi seetaan mooy lii day continuer il faut que peuple bi jóg défendre cause bi loolu mooy waral suba nit bu gouvernement bu buggee jóg def ay ñaaw ñaawteef dina xalaat ni ah ñii dañuy yóg suba mbooloo bu ñu boolee ñoom duñ ñu mun mënal dara mais fii ak ñu ngi tekkilikoo ñi jaar ni ñi jaar ni dañuy mënal dara mbooloo mënuñu xeex ak mbooloo loolu lenn la may cité rek benn cas bu ndaw mooy doy na doy na misaal doy na misaal encore mooy mooy seen yàqteef bi ñu def mooy nii ñu ñuy jàpp may may masaw famille détenu yi famille détenu yi jàpp nii lu ñu sibir ñu dañ ko dañ ko xam suñu parents yi dañ ko sibiir ba feebar su ma yaay bi ngi tëdd nii fu mu ton nii dem moo ko desee dem rek bu ma bi ma génnee ba léegi tëdd lay def mu ngi nii ba léegi donc ma wax leen ñoom tam jugi subir la même chose bu ñu seetaanee suba ñeneen encore dañ koy subir ci leen injustice état boo xamante ne yooyu yaa ngi fii say propre ñi nekk sa propre ses propres ministres ses propres députés dañuy def ay injustice lu leen nañ ne fang doo ci wax dara doo jàpp ku def lu gën a tuuti li boo ko xaajoon ñeent juróom-ñaar boo ko xaajoon ku def lu toll nii nga jàpp parce que lan yow sa cause yow say say ngay jël yow ku sa mbokk bokkul donc loolu tam il faut qu'ils arrêtent non à la dictature président Macky Sall ñu wax ne arrêté na arrêté conséquences yi dama leen di wax buñ seetaan bii bu ñu koy continuer seetaan dama leen ci cité ñetti cas yu tuuti te gaaw benn waay bi ñuy wax euh, benn malien la dañ ko jàpp indi ko fii comme nii ci lu gaaw dañ ko jàpp waa ji bu mu demee bu muy ñibbi fekk na tëj ne ko fi 3 ans bu muy ñibbi fekk na ñu takk jabaram fekk na benn ñu takk jabaram beneen jabar bi dem njëkk njabootam tas et mais et cas boobu lu ko waral mooy di injustice waaye dañ ko tëj ñoom ñu dem xam ne du terroriste dara gisuñu ci moom dara ñu yolleeku nank bàyyi ko bu ñu koy bu ñu bàyyi may kap moneel ci prison bi ñu yolleeku nank bàyyi ko génnee ko jox ko 5000 francs ne ko na paas yóbbu ko ba ci mbedd mi dajeeg ay ay ay xam nga koroboro lañ koy mooy ñiy lakk seen lakk boobu ñu dem ba fa ñu ne leen eh, dimbali leen kii dimbali leen ko a dem ñibbi dëkkam mais xoolal ma loolu injustice boobu benn nit kooku lenn la si le cas de kooku tamit dañ ko jàpp fi ak bronze bi terroriste la parce que bronze bi bronze bi moom la ñuy defee étui yi mooy ay canon ay bombe ay ay ay ay ñu dem enquête ba gis ni loolu du ci dara waa ji dof na ci kaso bi maa doon sang personnel maa doon sang dafa dof ci kaso bi mënutul dara day def déchet ci kawam lépp fu muy def ci néegam la koy def mais waa ji euh, euh, euh, weer bu may génn la bu ci topp ci la génn waa ji bu mu génn xamul fu muy dem parce que dof la mu ngi doon tëdd ci mbedd bi fii dañuy il fallait que ñu woo bi ko mais pour lan injustice imam Sey mooy professeur nekk Kédougou ñu cité ci ay programme yi affaire Charlie Hebdo ay mbir yi comme ni ngeen ni ngeen ko xamee ñu jàpp ko ci affaire bu ñàkk fayde moom tam xelam dem na am na njaboot bu bëri am ñaari soxna am doom yu bëri fu mu toll nii njaboot bi tas na soxna mu ngi résisté am na soxna mu ngi foofu mais li mu ci a wax mooy toll nii mu ngi am problème bu sérieux donc li ma bëgg a mooy sénégalais bu ñu seetaan bu ñu seetaan il faut que ñu adhéré mouvement yi ñu jóg taxaw pour lii mun a deñ parce que képp ku toog sa kër suba dina daal sa doom mu daal sa mbokk wala mu daal mu daal sa xarit donc noonu lay demee donc encore may wax nii mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Imam Diagne mais injustice bu leer nañ bu leer nga jàpp ay nit yóbbu leen génn nañu dox seen i soxla nga fekk leen sër kër génne leen encore yóbbu leen munoo wax ni ñu la leer ba pare nga bëgg leen fa bàyyi ba kañ mais waxal nga bàyyi leen nga bàyyi leen parce que bu mbir bi bu ba leen yóbboo doo am loo leen tëjee doo leen tëjee kooku léegi damay encore mooy Euh, si kaw muy détenu terroriste yi balaa mi daal ci dernier cas force spéciale yi dé détenu terroriste des na foofu une dizaine benn dix yoo xam ne ñu ngi fa mais dix yooyu lan la ñu def ñun lu ñu tooñee loolu leen leen bàyyi foofu ci kaso bi moo moo fa ne ba léegi-léegi seen waajur yi ngi subir ñun def nañ fa ñi ay 6 ans ñi nangam ak bu ma génn ba léegi def na def naa fi 3 ans donc ñoom ñu ngi foofu ba léegi ñu ñu tëj leen 15 ngi tëj leen 20 ans xamante ne ñu 5 ans yi mais lii dafay continuer ba kañ terroriste terroriste yow koo bëgg euh, a koo koo bëgg a koo bëgg a sacrifier rek nga jëndi force spéciale terroriste jàpp yóbbu tëj ci kaso bi donc damay wax ni encore lii sama sëñ bi di wax léegi-léegi di suñu gouvernement bi xamuñu nooyal déedéet lii la ñu xam loolu la ñu xam man bokk na ci lu ma génne ci kaso bi gannaaw yàlla mooy lii dama jaayante taxaw jaayante bi ñoom ma ne dañ ma fiti ci injustice du ma ko dama yëngal kaso bi fële Cambonel yëngal foofu dirigé fi ay grève ñu jël ma indi ma camp pénal camp pénal bu ñu indi mayu ma leen jàmm ma ne leen damay génn parce que ma fi ma leen ko ñaari ñaari ñaari mandat de na ma ci benn mandat xam ne su ma génnee damay wax ma bëgg a ñëw génn ànd ak ne ma da des parce que am na benn naar boo xam lépp nekk de c'est des en fin de compte ñu woo ma jékki-jékki ma toog sama toog xool ci télé gis ñu ne ma bàyyi na la defoo dara mais loolu mooy lan mais Sénégal lii mooy lan yow ngay sacrifier bakkanu nit ñi kaso mel ni ku yor euh, këyit xottu gerte di dugal di génnee donc cas bi dafa grave nit ñi foog ñu saisir seen bopp ñu toog xam ne kii il faut mu jóge fi te nañu préparer nag incha allah ci élection yi di ñëw sénégalais dañu kooku il faut dégager ce gouvernement de malheur nañu que li mënu continuer mënu continuer léegi nag may cité en euh, amoon na juste cas imam Ndao tamit yàlla ko yàlla yërëm bu baax a baax ñu lañ jàppandoo woon waaw ñu waaw ñu lañ jàppandoo di si fa des tamit ah. ak imam ndaw lañ jàppandoo woon effectivement da ciy def jàpp nañ ñun génn nañu am na am na jeunes yu fa des mais imam lu mu tax ñu jàpp ñeneen imam Abdou Karim mais imam ko wax ñun dañ koo fekkee ñun du lu ñuy wax ay kër fekkee imam bu muy wax nii lu muy sibir foofu dañ koo fekkee ñun ñu ngi foofu imam bu génnee ci cellule am bi day ñax bay siit day siit yërëm yi da koy génne di ko wañ loolu lu ñu fekkee la lu ñu fekke la du loo xamante ne tiituñu si ragaluñu si lu ñu fekke la kon pourquoi léegi ay nit wax ko ñu ñoo jàpp ñenn bàyyi ñenn pourquoi donc il faut qu'ils arrêtent donc tey sacrifié nañu imam ay njabootam ñu ngi nii toog suba keneen day ñëw gannaaw suba keneen gannaaw suba keneen ma leeral rek ci gàttal encore balaa may daane balaa may tëj man mi di wax ak yéen yàlla ma dimbale encore sinon force spéciale yi ñuy wax ni man dama ci waroon bokk encore man dañ ma waroon jàpp Sénégal xam musuma ko wax mu ko gisuma ko fenn nag dama ne woon la su ma toogee ci ci média incha allah dama koy ma ciy tiit jour bi ñuy jàpp force spéciale yi mu nga fekk tali bu maa ngi dëkk si kam ci tali bi ma jógee sama bureau wàcc taal sama di dugg ci euh, di dugg sama koñ bi may dugg ci Bourguiba bi savrasi may dugg sama koñ ma gis circulation bloquée ma jël sama ko ci kaw trottoir bi di defar circulation pour lan parce que oto yi mënuñu dem ma gis gars yi di ñaan di di coow mënuñu dem ñu naan xamuñu ban heure dañu yegg seen kër ma taxaw defar circulation jamono may defee circulation policier ñu ngi xeex ak booy ñu ngi doon ay ñu ngi ba sur ba daal di fluide mu yoon bi normal mais am ma grande surprise sama beneen xarit ancien militaire mu ñëw tax ak man ñuy waxtaan am keneen ku ñëw suñu waa koñ ñu doon on était au nombre de li ma wax j'étais témoin li may wax ni ragal ma ci dara bi ñu taxee am benn waay bu jóge fële ñëw ils ñaar ñaari ñaari góor benn jigéen waa ji mu ngi odoo benn saak def ci ay bombe ay cocktail molotov la bu mu ko ci defee mu ñëw jubal ñoo taxaw eh sabaa def ñu ne quoi mu ne ñu mais yéen euh, dama bëggoon euh, dama bëggoon ñu wax ma mu ne yéen ci dama am ay affaire yu mu leen bëggoon jox pour xeex ak policier ma ne xeex ak policier la yooyu mu ne mu non dañu am ay affaire ma ne ko lan ngeen am mu ne fekk na mu ñu óodo benn sac ay bagage boo ci nekk léegi ma ne ko comme lan cocktail mu ne ma wax waaw benn waay bi ma ne jegee mu ne non de may ma kii ma wax ma ne ma ne kon ay bomb nga yor mu ne ma ma ne léegi lan nga bëgg dama leen bëgg jox pour ngeen xeex aussi donc mais le gars là en fait c'est-à-dire que ñoom ñooy manigancé seen i coup li ma leen wax nii ñoom ñooy manigancé seen i coup parce que lu lu koy firndeel waa ji bu mu paree bu mu paree bu mu xaar ah, ma daane balaa muy paree parce que avant balaa muy dem ma ne ko mais présenté wu s'il dama ko napp ma ne ko présenté wu s'il vous plaît waaye kan la ban audace nga am ñoo taxaw ma lii ne dama koy jox pour mu lu tax yooyu yaakaar mu tiit léegi sama gars yi bàyyi ko de ma ne ko noonu ay la dégage fii bu fi taxaw te jógeel fi yëpp nga ko yor nga gis kaaru autorité kaaru force de l'ordre yaa ngi taxaw moom foofu la jubal bu mu paree jóge koy xool di ko xool dañu ko ngi taxaw di ko xool mu dem jubal dem ba dem côté ginnaaw maître bat lémission dem jàdd foofu donc pour ne manifestant la da nga ñëw pour def loolu mais doo jege boor boobu yëpp mais fii force de l'ordre mu taxaw ñëw di def li muy def léegi am xooloo tey bu ma jëloon loolu tey su ma ko jëloon def benn erreur bu ndaw ñoom dañ may jàpp encore dugal la ci biir ne voilà encore force spéciale les was ba Sonko ngi ne ak i nangam nag donc c'est notre état qui s'arrête non à la dictature nañu bàyyi caaxaan bi bàyyi doomu jàmbur bàyyi bakkan jàmbur yu ñuy foowee kase du caaxaan kii s'arrête donc loolu laa mun li may wax donc euh, ci gàttal donc euh, euh, Euh, euh, ñu ngi woo mbokk jullit di woo sénégalais di woo chrétien di woo tout le monde ñu ñëw rallier combat bi ñu ñëw fekkee manifestation bi ñu organisé ni samedi bi nii pour ñu mën a défendre bépp détenu bu nekk fii ci Sénégal maa leen di gërëm di leen sant jërëjëf dañuy jox kàddu bi bu wér di wax si suñu tur turu détenu yi yi metti na trop nag ñun parents yi parce que ñu ngi jàpp suñu rakk suñuy ganaar frère ak suñu sœur amia li may wax président Macky sàll mooy na xool bu doon njabootam nan la koy dundee ñun bu ñu xëyee dinañ dem camp fële rëbës fajar la ñuy jóge Tëngéej ma ànd ak samay mbokk ñu jënd suñuy affaire dem rëbës dinañ rang presque ba onze heures ñu ne pose nañ dinañ fa toogaat presque lu mat deux heures de temps ñu doog ubbi ñu dugg buñ duggaatee si biir dinañ toogaat lu mat presque deux heures de temps encore di xaar pour gis suñu frère wala suñu grand frère wala suñu leneen di wax Macky Sall ne ñun lu ñuy dunda métti bu ñuy dem foog ñu am xaalis bu ñu yóbbu tegal leen fa am na yoo xam ne nit mënu ko wax mais nit ki nga xam ko si set si jub jullit deful caaxaan jaay ñu drogue tuxuñu yàmbaa violé ñu defuñu dara ñu jàpp suñu frère suñu sœur Amidia tëj leen man Amidia keroog bi ma ñëwee si marché bi passé ba ma gisee njabootam dama jooy bi ma wàccee podium dama jooy parce que dama yor ay doom comme moom suñu frère yor ay doom comme ñoom ñu toll si ubbite ubbite école war a jàng seen yaay gérer leen ñu téye seen i frère téye seen sœur Amidia téye ñeneen ak ñeneen Macky na xool li muy def te yàlla tax te xam ne dara du continuer fii si àddina yàlla moo ñu tiim yàlla ñuy dëggal moo ñuy dogalal lépp lu ñu jub bu jubee moom la bu wàññeekoo moom kon nit da xool sa diggante ak yàlla xam ne parent d'été yii nii sonn nañ toujours dañuy dem léegi visite yi dañuy sax tëbal balaa ngay tëbal yaa ngi xalaat booy demaat àjjuma looy yóbbu ak loo war a def xaas ba nga fay bàyyi ak la nga fay tëj yëpp day ne sa bopp mm-hmm. sans compter seen njaboot gën a sa kër ga ñu nekkoon ay su soutien de famille di dimbali seen yaay su mel ni man sama yaay mag la maatul génn di dem fen te ku ne da nga koy sa bopp da nga bëgg sa doom te yàlla tax doom dafa neex si xol nañu bàyyi doomu jàmbur yu ñu téye parents détenus yi sonn nañ léegi fi ma toog nii sëru Bouna Ba dafa jooy ba jooyloo ma kenn rafetul man sa yi ma demee marché su ma gisee panneau bi rek ñu war a seen photo sama yaram day daw ndax sama frère bi tax ñu téye ko nii servir na Sénégal nekk sapeur-pompier fu ne ne na fa nekk na Louga Kaolack Tivaouane fu ne ne na fa si ak jub nag yo yo yor ambulance bi nekk si loolu ba yàlla weddi mu génn ba bi muy génn nii si liggéey la jóg ñu jàpp ko téye ko te dara amuñu benn motif buñ ñëwoon fa ñu dëkk dinañ xam ne defuñu dara waxuñu dara ñoom ñëpp kenn ku si ne na leen bàyyi te yàlla tax te xam ne luy continuer fii am. amul luy continuer si kaw suuf nguur yàlla donc moo dul jeex ku ne nag da nga koy xool si sa bopp parce que bu ñu tëyee sa frère wala sa sœur ngay baagante chaque jour di dem ko ñëw amatuñu benn activité lu dul ñoom parce que ay gor lañ ay nit lañ. Mm-hmm. ay doomu aadama lañ. yenn yi rafetul na bàyyi xale yi ñu génn bàyyi amité mu génn. Mm-hmm. métti nag torop nag waaye ñu ngi koy dégg ko yàlla te xam ne yàlla dina ko ma sa teggi mm-hmm. saa ñu toogee marché gis suñuy photo rakk ak ay sœur amitié ñeneen ak ñeneen rek suñu xol yi day jeex. waaye nag yàlla ñëpp la fi nekk ku xam rek nga xam ne yàlla ñëpp la fi nekk ñun julli or def ñuy farata bu ñu waree màggali màggal nekk taal sëñ Fallou yàlla yàlla na leen sëñ Fallou wala ñoom ñëpp ñu génn si jàmm ak salaam loolu lañ leen di ñaanal te xam ne nag nañu muñ rek te xam ne dina mës a jeex fii luy continuer amul lu fiy continuer amul seeni doom ay xale yu tuuti lañ ay 6 ans 7 ans 8 ans ay xale yu tuuti ñenn ñi sax duñ leen wax ne seen papa ñu ngi parce que li tubaab di wax kenn du wax xale yenn yi dañ leen naan rek seen papa dafa tukki ñu ne si sutura yàlla xam na yàlla dina ko mas sa teg un jour waaye li may wax Macky Sall mooy na bàyyi ñii ñu ñibbi seen kër amul motif bu leen téye lu jiiñ leen ay terroriste fu ñuy nekk ay terroriste lan mooy terroriste sax lan mooy terroriste si àddina ah ñun suñuy papa nekk militaire sapeur pompier adjudant chef service Sénégal suñuy frère ñëpp ba toll fii na bàyyi nit ñi ñu ñibbi seen i kër yéen ñii nag dama leen di gërëm di leen sant waa Colite Deb yéen amuñu seen fay waa Pastef amuñu seen fay boobu ba tey parent détenu bu ne yéen a ngi def si yéen li ngeen man mhm. ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu leen neexoon nag leen si fekk parce que bokku leen ndey bokk leen bàyyi da ngeen xamante rek si aadama aw nekk ay patriote bëgg seen dëkk moo tax ngeen bokk ndey bokk bàyyi yéen ñëpp ñu fi teew li ma leen di ñaanal mooy yàlla taxawaay bi yàgg yàlla dëgëral leen may leen xolu muñ te xam ne lu dul jeex amul nag dina mës a jeex luy continuer amul fenn yàlla rek moo dul jeex asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. si nañu euh, ci cappaandaw bi mais dañ leen di dañ leen di fàttali rek ñetti mbir mooy ne euh, Macky am na benn benn phrase bu célèbre boo xamante ne dinañ ko ko dëkkee fàttali ba keroog mu ñuy abal suñu senegal bii moom la fi benn kilifa diine ne woon Macky góor du jooy kasoo taxoon mu demoon du jooy ci kër kilifa diine wañu ba ko kaso googu la bëgg a def fooweekaay tey téye fa suñuy morom di dugg ak a génn. ma déglu benn interview Marème Faye Sall elle disait que bi mu amee taawam bu góor elle mu bàyyi jàngam ngir mu mun a yor taawam boobu Amidia Amidia mi ñu tëj nii ay doomam ñu ngi koy jooy ni mu sacrifié jàngam mun a toppatoo taawam noonu la ay doomu Amidia soxlaa seen yaay noonu la ay doomu Ousmane Diagne soxlaa seen pap noonu la jabaru Papito Kara soxlawee jëkkëram parce que kii récemment la marie même pas un ñu téye ko ci yu ni mel kaawu Ndongo Diop vidéo bi ñu ko jàppee woon événement mars yi moom lañ koy toppaatee nii parce que même vidéo la kon scandale yi du jeex ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewaay bu fekkee am ngeen ay question ñu jublu ci léegi